ñu ngi ci téere bi di Xilaadu Zahab fi siirati xayril arab ci délégation yi nga xam ne ñoo doon ñëwal yonent bi sallallahu alayhi <clears throat> wa sallam mu ne kazaaka naka noonu la asdu umaanin asdu umaan waa umaan ñëw nañ doomi Asdi yi nga xam ne ñoo bokk Oman ñëwal nañ yonentu sallallahu alayhi wa bañ ñëwee daal di jébbalu dugg ci diina ji yonentu bool leen ak alaaw bu na xadara mii pour mu jàngal leen sharia alaaw jàngoon mooy ki nga xam ne moom génne àdduna bañ gesee bàmmel bu fa ab leer rek lañ ko fekk ngir mu jàngal leen diine ndax nit bu xamul diine du mën a appliquer diine dana def lu ñaaw rek foog ne lu rafet lay def wala mu def lu rafet ba pare foog ne loolu lu ñaaw la moo tax jullit li njëkk ci moom mooy xam diineen xam gu ndax mu xam lam war a def ak lam war a bàyyi waaye xel rek moom ku koy demee da nga ñaaw lu taaral lu ñaaw <clears throat> yonentoo ngi ñu duggaan ci lislaam na dafee ne jàngal sharia moo tax kenn du ko desal gannaaw mu jàngal leen shariatul islam di jël seeni azaka séddale ko nuñ ko war a séddale su ko defee ab délégation ci waa Oman ñëw ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga Asad bun Bayrax mu ngi ci délégation ba taaxi bañ ñëwee dajale yonentu na ko yónnil keneen mu ñëw ci ñun ngir jubbanti suñ mbir mu yónni maxramatu ñu ne mu xaribatun abdi turam mooy mudrika bun xuut mudrika la yàlla di yónni ndax mudrika moo sàkku ñu yónantu yónni ko ci ñooñu keneen kuy taxawal seen mbir di ko jubbanti mudrik ne yónantu xebal ma ma dem fa ndax ñooñu defal nañ ma kóllëre goo xam ne war naa leen koo fay kon xebal ma foofu ndax yow mu jënu xeex la woon dañ ma jàppoon ci xare ba man maa rey ma maa def lu ne waaye ñu ma daal ma ba noonu loolu teraanga la ma defal moo tax mu ne ba sàkku njiit mu leen jubbanti yóbbu ma fa ndax man dinaa leen yërëm dinaa leen xormaan ma defoon ñu doon te xebal ko foofu sallallahu alayhi wa moo tax léeg-léegi palte da nga ko laaj <coughs> laaj ba xaayut waaye léeg-léeg laaj ko nag laaj baxaay su fekkee daal xamam nga ci dara ci àddina moo tax nga laaj palte ga laaj googu moom baaxul <coughs> waaye bu fekkee nag du xamam ci wàllu àddina nga laaj palte kooku laaj googu dara nekkul ci rek de laa ziyaat laajoon na yonentu sallallahu alayhi wa sallam palte lam mérite yonentu jox ko ko <coughs> mu di rek a ngi nii moom it di laaj yonentu palte Usmaan ibn Abil Aas ca délégation Saqiif ba laajoon na yonantu mu def ko imaam kooku paltere ci diine moo tax ndomba tànk ne yow rek yaa fi yow daal boo boo ko jëlul mën naa yàqu kooku ko dara nekkul si rek laa su ko defee yonantu mudrik moomu mu ànd ko <clears throat> Salamatu bun Iyaad al Asdi daal di ànd ak délégation ñëw kon ñoom def nañ délégation laaj yonentu ne ko lan lañ war a jaamu ak li ci lan nga ñuy xoo yonentu wax ko mbiri lislaam lépp mu ne ko ñaanal yàlla mu boole suñuy baat def ko benn daal di ñu benn mu ñaanal leen yàlla salamatoog mboolem ñu ànd ak moom daal di jébbalu dugg ci lislaam <clears throat> ñu ñooy délégation waaw man yonentu wax si ñoom la rafet ne neemal wafdu alasdu tayibatun afwaahum baratun aymanuhum naqi taqiyatun qulubuhum mu ne ndaw délégation bu baax délégation boo xam ne gémmiñ yu teey lañu am lu rafet rek la ñuy génne seen gémmañu yi délégation yoo xam ne luñ gën dañ ko def ñu am kóllëre lañ waaye délégation yoo xam ne nii ñu ragal yàlla lañ noonu la leen yoon tu taggee xool yu ragal yàlla lañ am ñoom ñoo gën a rafet tagg waxaan na ne asdu ci man la bokk ma ne ci waa asdu laa bokk buñ meree ma daal di mer lépp lu leen merloo daf may merloo waaye ñoom it lépp lu may merloo daf leen merloo lépp lu leen gërëm gërëmloo daf may gërëm gërëmloo waaye ñoom it lépp ma gërëm gërëmloo rek mu gërëm le gërëm gërëmloo leen su ma meree as du mer su as du meree ma mer su ma gërëmee waa as du gërëm su as waa as du gërëmee ma gërëm loolu la yonent wax ci ñoom sallallahu alayhi wa sallam tagg leen tagg wu rafet même bayrax gannaawum yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñëwalaat na yonent ñëwaat na yonentu waaye fekk yonentu génn àdduna sallallahu alayhi wa mu ñëwee Medina fekk yonentu génn àdduna ba muy dox ci yoon rek ci la ko Omar gis radiyallahu ko yow la kan ko waa ci ci Oman laa jugee Omar tee ci loxoom ba dugal ko ci Abu Bakar ne ko kii mu ngi jugee suuf si nga xam ne dégg naa yonentu sallallahu alayhi wa sallam di leen tudd di leen Abubakar dégg na yonentu naan xam naa suuf soo xam ne ni Oman lañ koy wax man ca côté géej ga am nag ab quartier ci arab yi ñu fa nekk su ma leen xebo su ma xebaloon am ndaw ci ñoom duñ ko sànni sax fett waxuma la ak xeer duñ ko sànni xeer waxuma la ak fett ñu uh, jub ñu baax ñu ngi foofu noonu la yonentu tàggee mooy délégation ñëwoon nañu yonentu dugg ci ñoom wax yi rafet moo tax ne kazaaka naka noonu asdu umaanin asdu umaan ñëwal nañ yonantu maa zubayd ànd ak zubayd ñooñu ñëwal nañ yonantu sallallahu alayhi wa sallam zubayd nag amru bun maadi karab moo ànd ak mbooloo ci waa zubaydu dikkal yonantu sallallahu alayhi wa sallam lu amru dem amru dafa wax qaysu bun makshuux al muraadi ba nga xamee ne dégg nañ mbiru yonent bi sallallahu alayhi ak wooteem ci la amru wax xaysu ne ko yaay saw sangu nit sa gaañi de yaay seen sang nettal nañ ma ne am na góor ci Quraysh ñu naan ko Muhammad ma ngi ci Hijaaz di na ab yonentu la léegi nag demal ci moom déglu ko bañ xam lan lay wax su xóoree na yonentu la ñun dinañ ko xam su boobaa buñ dajee moom topp ko bu fekkee nag du yonentu nag danañ ci amit lu leer ñu weddi ko ci xam-xam daal xëy su ne ko mukk man kay duma dajee góor googu yow dof bu mag ga moom daal gëmul na yonentu sallallahu alayhi jar naa sax dajeeg bay gëstu weddi rek moo ci war amru bun naadi kër waral boxam moom ànd ak mbooloo ba ñëw ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñëwee gis ne kii am yonentu la mu daal di jébbalu daal di ko dëggal daal di ko gëm xëy su ba mu yëgee loolu mer lool daal di tëg ko amru ne mu ngi wuteeg man di ba sama mbir ak sama xalaat waaye mu ci moom dara amru moom jàmbaar la woon joo xam ne yàlla rek a xam amru des ci aw nitam mooy banu zubayd safaab diir jamono boobu farwatu bu musayk moo doon seen njiit ba nga xamee ci génn àddina nag yàlla na taamru bun mahdi karam mu murtat bokk ci mbooloo mi nga xam ne murtat nañ génn ci lislaam delluwaat ci caaxaanam nekkoon gannaaw ga nag ci la tuubaat delluwaat ci lislaam lislaam rafet lool mu ànd ak Aboubacar ci xare yu bari dégg nga ànd ak ci xare yu bëri bokkoon ci jàmbaar yi nga xam ne daan nañ leen tudd ci lislaam dégg nga bokkoon ci waykat yi nga xam ne ñu rafeti way lañ yàlla may na ko chance boobu moom mu ngi faatu ci xare naxawand <clears throat> ci la faatoo nee nañ ñu ne déedéet ci xaadisee la faatu mooy dafa shahid daal dafa xeex bañ rey ko ñu ne dafa mar ci xare ba ba dee lu mën a xew daal dee na ci xare ko ñu xam ne bun maali karab kenn la ci jàmbaar yi ñu tudd ci jàmbaari arab yi murtatoon na gaaw waaye dugg na ci islaam ba muy dem délé ba muy def délégation na dem ci yonantu caatam juróom-ñeenteel mi la ñeenteel la am tax ñu ne moom waaye mosul dajeeg yonantu bi loolu la ñu wax ci moom moom mooy délégation Zubayd wa aslamu ak délégation aslam. ñooñu ñëwoon nañu yonentu sallallahu alayhi wasallam wafdu aslam umayratu bun aqsa moo ànd ak mbooloo ci waa aslam ba ñëwee dajeeg yonentu ne ko gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi topp nañ sa yoon waaye nag bëggoon nañ nga defal ñu daraja joo xam ne arab yëpp danañ xam ñun ñooy ñan xam suñu gëneel maanaam daal nga jëflante ñun jëflante goo xam ne ñëpp danañ ñu teg fu kawe jox ñu cër xam ñooy ñooy ñan ndax waa lansaar gii la dimbale ñun suñuy mbokk lañ ñu ne waa lansaar ñoo bokk te nag lépp luñ ko lëwanteeg yow danañ ko matal bu jëfee bu yombee danañ dimbalanteeg yow loolu lañ wax yonentu sallallahu alayhi wa sallam sàkku yonentu daal wa euh, euh, yëkkati leen yëkkati daraja yonentu aslam salama allahu wa xafaarun xafara allahu laha aslam yàlla jàmmoo naag moom loolu rek la wax ci ñoom yàlla yàlla jéggal na ko mu tagg leen tagg woowu daal di leen bindal leetar boo xam ne mboolem ñu jébbalu rek dégg nga ak ci arab yi ñu dëkkee ci tefesu géej yi ak ci suuf yi ñoom ñëpp yonentu bind leen leetar boo xam ne dana jàngal na leen ci azaka ak farata yi nga xam ne nii moo war ci yi maanaam jàngal leen daal sariatu bii nga xam ne moom la ñuy jàng tey <coughs> yonent bi ñu leetar jàngal leen jàngal leen loolu ñoom ñëpp moo tax kuy julli rek jàng diineem <coughs> ba xam ko ndax loolu la yonent doon def mboolem ñi nga xam ne dugg nañ ci diine ji leetar boobu saabi bun xaysi bun chamas moo ko bind abu ubaydatu bun jaraa omar ibn xataab ñoo ko teewe ñooy seede ya loolu délégation aslam kaza naka noonu baariqun délégation baariq ñëwoon nañ yonentu sallallahu alayhi wa sallam wafdu baariq dugg nañ ci lislaam dal di jébbalu jaayante ak yonentu ci délégation yi doon ñëw yonentu ci lañ bokk yonentu bindal leen leetar sallallahu alayhi wa sallam xëy na seeni suuf dañoo soxla seeni i meññat ak seen i gàncax moo tax yonentu xaaree ku dagg seen meññat wala seen gàncax ne leetar bii mu ngi jógee ci Muhammad Rasulullah jëm ci Baariq mooy girgo googu na ngeen fexe ba bu kenn dagg seen meññet mi ñoom meññitam waa Baariq nañ leen ko bàyyee kenn dagg waaye seeni réew bu fa kenn sàmm moo xam ci loolu la wala ci noor bu ngeen amee seen jur bu leen ko sàmmee ji foofu xëy nga ñaan leen daal bañ may la suñ la mayee mën ngaa dagg seen meññeen mi wala nga sàmm seeni tool waaye bu dul loolu moom bu leen ko def mu ne bépp julit bu romb nekk ci xat-xat wala jafe-jafe ah na ngeen ko ganale ñetti fan. maanaam yéen waa Baarak su ngeen amee gan moom kooku moom na ngeen ko ganale teral ko diiram ñetti fan ganal na ñetti fan laxem bu ñetti fan jeexee rek jeex na ne waaye bu meññet yi ñoree ki nga xam dafay tukki rek ibnu sabil bu fa rombee mën naa dagg ci meññet mi witti lekk daal ba suur waaye bu mu nag jur bu mu buddi gàncax ga nag yóbbaale na lekk ba suur rek loolu la leen loolu la leen bindal leetar boobu Abu Ubayda ibnu Jarrah ak Xusayfa ibnu Yamaan ñoo ko seede Ubay bun Kaab moo ko bindal yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax Ubay ci bindkat yonent bi la bokkoon mu ne wa ibnul Xumaydi ak ibnul Xumaydi mooy salaam ci mandargaal ko kooku ci Banu Murratu la bokk Banu Murratu délégation lañ mooy wafdu Banu Murra fukk ak ñett lañ woon ñëwal yonentu wa sallam seen njiit ma mooy xaaris bu na xawf yonentu na leen gannaaw bu ñëwee wàcc ci këru ramlatu bintu xaaris mooy këroon këru gan yi ànd ak seen njiit ma bano xaaris su ko defee waa xaaris kon bu na waa bokkoon ci jàmbaar yi yi ñu dugg ci lislaam xaaris moom ba mu jébbaloo fekk na rayoon na ay nit yoo xam ne nii tuuroon seen deret waaye yonentu neenal deret boobu ndax bépp deret yoo xam ne njëkk lislaam la xewoon xeex yooyu yonentu daf koy avancé sallallahu alayhi wa sallam ne xaaris dégg nga wala boog xaaris ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun sa mbokk say mbokk lañ ndax ñun loo ay bun xaalib mooy suñ maam yonentu muñ sallallahu alayhi ne ko sa waajur yi da gën a jege ba sa mbokk yooyu noo def ak ñoom ci la ko yonantu laaj nag ne ko noo defak ak say dëkk maanaam nu ngeen mel dëkk yooyu yi ngeen dëkkee nu mel mu ne ko ñun de ñu beekoor lañ <coughs> beekoor gu tara tar suñuy jur sax amuñu yuur ndax làpp ñaanal yàlla mu may ñu taw ci la yonent ñaanal ne allahumma asqihumul ghaytha yàlla yàlla nga leen nandiral taw bala yonent ñaanal loolu ñu sax eh, Medina ay fan gannaaw ñu dellu ci réew ñëw si yonent nag pour tàgg ko yonent ne Bilaal nang leen jox dañuy jox mbooloo mi nga xam ne ñooy jébbalu kenn ku nekk mu jox ko fukki awaaq ci xaalis xaalis mi nga xam ne mooy sang ba mooy njiit ma yonent jox ko fukki awaaq uqiya ak ñaar kon seddale addaraawu mbooloo xool seen kilifa nga ëppale nga jiital ko loolu moom dara nekkul ci lu tax nag mu def loolu ndax xaaris coono bi yépp moo koy gàddu dégg nga ndax jiit lu ñëw rek ci kawam lay daanu moo tax ngay joxe xewal jiital ko ca kooku sunna la yonentu def na ko sallallahu alayhi wa sallam fukki uqiya la jox kenn ku nekk mu jox xaaris fukki uqiya ak ñaar ah, noonu lañ def su ko defee nag <clears throat> bañ delloo gis ne kereeg bis beneen yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaan la yàlla keroog boobu taw na seen dëkk boobu la taw ñi mujj nekk ci naataange ci barke ñaan ak yonentu sallallahu alayhi wa taw boobu ci naataange rek lañ nekk bis jot nag baxjatul wadaa di am mooy aj ga yonentu di tàggoo xam nga dafa woon kuréeli arab yi ñu ñëw xaaris daal di ñëw ci yonentu sallallahu alayhi wa wala boo kenn ci ñoom daal ñëw ci yonentu sallallahu alayhi wa ne ko yonent bi keroog bañ la ñëwalee ba dellu suñu dëkk dañ ko fekk mu taw ci bis boobu ñu ñaanale yàlla ñu ngi ci naataange nangam ak nangam nanga nangam wax wal gi nga xam ne ni daal ñu ngi ko nekkee léegi yonent ne alhamdulilah huwa alladi sana zalika nañ sant yàlla ndax loolu yàlla ko def waaye du ñun sallallahu alayhi wa ku nangu ñaan la ndax ku jubóog yàlla nangu ñaan <clears throat> gannaaw ga nag xaaris ñëwal yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy xaaris bu naaw fi njiitam banu umura ne ko yónni si ñun koo xam ne daf ñuy xoos ci diine di ñu jàngal lislaam man maa koy garanti mu nekk ci jàmm yonentu yónni benn waaye bu nekk ci waalam saar mu nekk fa di jàngale diine di ko jottali ba bis ñëw ay mbokki xaaris daal di ko rey ah xor nañ yonentu xasaan bun saabit waykatu yonent bi moom ku xor yonentu moom mu jël xalimaam wax ak yow xasaan daal di jël xasida ay xasida ngan ñi xaaris ak banu murra ne yaa xaari man yaxdir bi zimmati jaarihi minkum fa inna muhammadan lam yaxdir in taxdiru falxadru minkum chimatun wal xadru yanbutu fi usuli saxbari wa amaanatun muri haysu laqitahu mislu zujaajati sad'uha lam yujbari mu ne yow xaaris bu fekkee yéen da ngeen am ñuy xor kullere dëkk ndooram Muhammad de moom mbiram xor xamul ci moom ku bokk ci moom du xor su ngeen xoree loolu du ñu bett ndax yéen xor seen jikko seen aada ay war kan ngeen te war nag dafay sax ci cosaani garab yi sax bar maanaam ñun suufee noonu rek ñooy xor kulle ne waa banu murra foo dajeeg moom xamal ne moog bitee dahem bu tojee kenn mënu koo defar maanaam bu la waa banu murra joxe kóllëre bul xoolu ndax kóllëre le lu gaaw a yàqu lay doon comme ni biteel gaaw a yàqoo te su yàqoo kenn mëntu koo defar comme ni nga xam ne biteel bu tojee kenn mëntu koo defar kon daal bu leen wóolu mukk wax ban umura bay kóllërante ak ñoom xasaan dafa mer ba bind xasida yi si la xaaris bi ñëwal yonent bi daal di jégglu ne ko yonent musulma ci làmmiñu xasaan ne ko mu noppi ndax yàlla may na ko fasaxa goo xam ne yii bu ko dugaloon ci géej sax mu feeñ ci waxuma te lii du man ay nit lañ rek yu juum ñoo def lii ci la ko yonentu jéggal nag sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy eh, waa murra ibnu xumaydi ci ñoom la bokk hada in uridu lislam wastanatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib والسلام عليكم ورحمة الله 我不敢做。